ba tey gis ngeen mbokk yi ñoo ngi fii buntu ko Siteu fekk fi ñi nga xamante ne nii ay jegeñaale Siteu lañ fekk fi ay jege ñaan Siteu mu bëgg a wax ci combat bi yow bàyyil jàmbur nuyu naa. am na tooñ Abou Ndiassé sama gaan la noonu la demee fay naa la sëñ bi mooy ñu ngi saaru biir de màggal képp koo xamante ne xam nga ñuy toog ñu seedaan li ñu bëggee te xam ne bis yi ñun kontaan nañ ci kontaan nañ ci quoi parce que lu tax kontaan nañu ci mooy Papa Sow dafa def acte boo xamante ne du acte acteur quoi. parce que Siteu acteur la moom acteur la quoi war na def loo xamante ne xam nga war na ñu metti métti parce que làmb joo xam ne nga toog pendant trois ans di ko xaar xam nga ak corona bi fi jaar genre truc lu ne xañ na lu ne dugg na ci xam nga yàlla def ba bis bi jot ñu war a bëggal amateur yi làmb Sénégal defoon faayit xam nga Siteu war a yeer làmb Sénégal parce que xam nga man yàgg naa ko wax ne leen Sénégal Siteu international la parce que nekkul ndawul pour Sénégal benn parcelle Sénégal man dama gëm sax waa parcelle ak waa ñenn ñëpp sax dañoo a taxaw ci Siteu parce que Siteu nekkul ba xale boo ne xale Sénégal la xale international a lu mag lu leen da cee war a parce que Siteu la loolu xam nañ dara parce que ñoo ko mais Papa Sow li mu def démb mooy li ma koy woowee mooy maanaam dafa géem quoi dafa def loo xamante ne nit du ko def quoi doomu aadama mooy xam nga ne yow tey baaxul xam nga ne xaaral ma def loo xamante ne fasar la parce que mën naa ñaaka làmb bu subaa amateur yi si la tey public bi moo ko moom moo feesal làmb moo xama nga xam nga moom moo aaye quoi su ma bëreeg moom bu ma daanee après xam nga fayat day ñëw ci man quoi. loolu moo tax mu tourné verset bi dem gaañi boppam ci barrière am ci cumukaayam toj boppam genre truc mais ma loolu du ma ko ci wax du ma ko ci blame parce que moom acteur la quoi man loolu laa koy laaj quoi moom acteur la si la acteur la j'ai écouté film acteur bi mooy dañoo war a bëggal yi yaa ngi dégg parce que acteur yi bëggal nit ñi téléspectateurs retardé ñoo tax ñu toog quoi ñoom dañoo war a bëggal ak bi moom waroon na lu mu métti métti waroon na gëm yàlla am quoi xam na xaalisu làmb bu lawee ci benn moment mooy boo ci fayatee quoi mais boo triché xaalis boobu boo ko joxee sa njaboot day feeñ ci yow quoi na ci mag yu bëri yoo xam làmb moo leen tàggal parce que xaalis amul bu baax mais fa nga ko jëmale na rek moo am solo quoi parce que sëñ Abdoulaye dina ko wax suñu kii kilifa bu baax googu naa ko man xaw ma fu muy jëlee xaalisam mais xam naa fu koy dugal waaw kon boo koy jëlee ci lu ñaaw sax da nga ko jëlee loo xam boo koy dugal suba mu doon loo xam lu rafet la quoi Papa Sow na bàyyi lu muy def si da nag nañ ko jox lu mu attal quoi poids am waaw poids am quoi loo xamante ne loolu mooy valeur am ci làmb joxaguñ ko mooy dañ ko jox ñu ngi ko war a jox xam nga leen. déedéet xamaguma leen ah, man du ma nekk fii nii Siteu de parce que amul bi ma àndal dégg nga lu wax day reñee rek di dem Siteu du ma ko amul kii que soit alpha ku bañ a bëri Siteu tey la na nga ko sóoraale ba ci ñëpp na lu nekk ci ginnaawam moom di wax Papa Sow ci suuf di ko encouragé du ma tudd turam sax di ko moom mais na xam na jàmm jamono ñu tol ni ni nii ñoo téye làmb ji na nekk salafis wala mu nekk lu mu doon loolu affaire am la moom Sénégal yëpp xam nañ ko may waxal ki fi nekk salafis mbër boo xamante dafa daw ci mbukaay dam doon ñu salafis war a bëgg yaa fa nekk de yaa ko man tarki ndaa la amul lu may ragal a wax mais dama leen am na ñoo xam ne du mu leen may ma du mu leen may dara dara dara ci buzz mais dama ñu la kooku noonu bu dëgalee boppam balaa moo nekk balaa moo nekk dëgal ci boppam ci salafis bu mu doon na ko salafis yi mais benn deux ans mu bëri si ba pare mu doog a nekk salafis yi après loolu moom la man seen xel a ngi ci Modou ñun ñi ki ne moo ñu ñoo yan borom dëkk bi mu ñu wax du ma wax kooku turam bugguma sax prononcé parce que kooku dama ko fonkoon mais fonkatuma ko li tax ma fonk ko dafa indoon benn jotaay boo xamante ne ci ñoom papis xam nga ñoom seexu naa ñoom samay gaañal ay côté ay côté lañ yaa ngi dégg ay ñoom bëri na ak sama rakk si nem si yàlla si Fodé ñoo tax ma xam ñooñu ñuy dund ak ñoom nice yàgg nañ leen lëndam na ñu xalal leen mu leer luñ ci wax parce que loolu bu ñu ciy def xam ne lu tax ñu def ko quoi Modou Lo nag waroon na fonk loolu quoi ñun boo ñu respecté daf leen di respecté quoi mais boo ñu xoolee. koo yàq coloré bi la yàq dafa yàq lu garaaw loo xamante ne parcelle ak jàmm gën dafa doon loo xam lu garaaw man Modou Lo maa ngi doog wax turam su ma mër la woon dama ko laagoon mais instant yii dama ma du ma ci sax commentaire barke Serigne Saliou.